am ko ci biir parti biir APR dafa nekk ci tànk yi nax yéen kaay gi moo xëy fisal lu ni mel ndax ba mu tànnee Amadou Ba wax ne moom mooy moom mooy waaja euh, ñu bari si ay ñoom dañoo génn fas yéene tàmbalee fippu tax yéen kaay gi di Walf Fadjri quotidien xëy tey jàll si amal ab taxaw seetlu leneen tamit loo xam ne yéen kaay gi Walf Quotidien xëy na ko fës mooy candidature kii di Mame Boye Diao samp ni na wax ne ne yéenam ak mooy wutu président Macky Sall ci bopp réew mi la taxawal nag aw yoon bees du pekk Sénégal niveau noonu la ko yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy fësale Abdoulaye leneen ci xibaar euh, Tribune fësal waaw bu dee yéen gi di la dafa xëyee dellusiwaat ci gitaŋaas wala fantasiro gi nga xam ne mee ko nañ ko jamono ci Euh, ci ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina ci biir parti bi di APR euh, yéen kay ni gannaaw Aliou Ngouye Ndiaye Mame Boye Diao ana kan ci ana kan ana mhm. kan kan moo ci tegu yéen kay gi moo xëy fësal lu ni mel euh, moom mi nag moom Mame Boye Diao yëkkati na ay daal di xam ne ne moom àndul ci eh, tànneefu Amadou Ba

jëlee yéenekaay gii di le peuple xëyee dellu soit ci Mame Boye Diao mi nga xam ne jamono ji daanaka li muy incarné mooy président de la république maanaam ci loolu lay doxee jamono ci biir ab taxaw seetlu yéenekaay gii di yor yor gi yéenekaay gii di yor yor xëy dellu soit ci Amadou Ba mi nga xam lañu tànn def ko mu doon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaay yi ne tànneef boobu leen nekk nekkul tànneef bu ëpp ndax fi mu toll gis nañu parti ndax ku ci mel ni mam Boye Diao samp ndëndëm ku ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo boo ma dana samp ndëndëm euh, ba ci kii di Aliou Ngouye Ndiaye yéen kaay di yor kon ci la la xëy dellu si waat yéen kaay bi di le point génn gu ci yéen kaay gi di point ne présidentielle 2024 Mame Boye gi di point xëy fësale donc euh, l'info yéen kaay gi Euh, wane na ne moom dafa fas yéene samp dina fas yéene bokk ci élection présidentielle yi ñëw euh, yéen kaay gi ne moom maay bay mam kon fas yéene jàkkaarloo kii di président Macky Sall euh, tax kaay gi dine ko xëy dellu siwaat ci loolu yéen kaay bi di critique waaw yéen kaay gi di critique xëyee dellu siwaat ci Amadou Ba mi nga xam lañu tànn def ko mu doon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi ne fu mu toll nag coow bari na ci lool mm-hmm. tax yéen kaay gi xëy samp laaj bëgg a xam Amadou Ba bi mooy kan Euh, yéen a gi critique xëy te daal di si dellu soit ngoog euh, le quotidien euh, dafa xëy dal Abou Abel Thiam ci laaj ak tontu gi dox ci jàpp ne Amadou Ba mooy waaja te incha allah rabbi dana gagné dès ndax bu fekkente ne sukkandiku na ci bilan président Macky Sall noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale waaye dafa jàpp ne ne moom mii di Amadou Ba li mu war a def mooy tekki ndomal tànkam ci bopp primature noonu la ko yéen kaay gii di la ko tëjee xëy fës direct news lam ñu jëqil waaye yéen kaay gii direct si ni ne ndax jotul kon mu joxe exemple ndax dañu gis ne jamono ji ay waa partim ñu ngi def seen képp lay kàttan def lancé nañ fi opération ñibbisi waaye ba fii moom Karim Meïssa Wade jéemu ci wax lenn du interview du vidéo du dara ah, tax yéen kaay gi xëy samp bëgg a xam ndax Karim Meïssa Karim Wade mi nekk kon ci tànk njuyaat waa parti démocratique Sénégal te boobaa nag mooy wane ni parti démocratique Sénégal dee na noonu la ko yéen kaay gi direct news xëye fës enquête yéen kaay kii ne euh, syndrome maanaam euh, bukk bi nga xam ne ni matoon na euh, waa PDS ay jamono ngir tànn ut seen numéro 2 bukki boobu kan mu ngi yoot waa parti bii di Pastef yéen kaay gi di lañ ko ci loolu la xëy dellu si yéen kaay bi di source bu ñu nee Pastef xel daal di jëm ci maxa ci jom Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xam mooy numéro 2 parti bi ci laaj ak tontu gi dox ci maanaam yéen kaay ne ki nga xam mooy juge d'instruction bi di Maham dafa fas yéene daal gën a dëgëral daal yi nga xam ne teg ci kaw ndodom daanaka daal euh, charge yi nga xam ne lañu teg ci kaw ki nga xam moo di Ousmane Sonko yu ni mel moom lañu fas yéene teg ci kaw ndoddam noonu la ko yéen kaay giiris usa xëy fësale yéenekaay bi di euh, libération libération xëy dellusiwaat ci jàppante yi am fële ci xosanto ba lu ci solo ñaari doomu adama ñàkk seen bakkan yéen kaay gii ne fi mu toll nii nag def nañ autopsie ba fi mu toll ni mbir yi génn na mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp balu fetal moo leen rey noonu la ko yéen kaay gi di libération xëye fes yéen kaay bi di le mandat waaw yéen kaay gii di le mandat xëye dellu soit ci ki ci loolee mm-hmm. euh, ne Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur ma nga woon démb fële ci euh, xosanto jot na fa daje nag ñi di manifester yile mm-hmm. euh, mu nekk nag loo xam ne ak waxtaan am na fa ba daanaka gindikonte am na ca noonu la ko yéen a di la mandat xëy fësale yéen a kaay di stade fu mu jëm waaye yéen a di stade xëy dellu soit ci commencé si gi doxoon ci diggante Sénégal ak Algérie Algérie dumaati na Sénégal solo ak benn bal ci benn muy nag premier défaite à domicile euh, depuis noonu la ko yéen a di stade xëy fësale yéen a kaay laam ku mu fësal waaye dafa xëyee di xam ne stade la boo xam ne Ablaye mhm. euh, jot nañ faa bëri lu ci tolloog fukki combat Euh, ci diiru maanaam ci fukki ci fan fii rek ci fanweeri at ak ñeent. ñeent waay nee nañ combat stade la boo xam ne ni bu fekkente ne ngëneel la. wala mhm. lu jiggu. jig stade bu jig la. Mhm. kii di yëkki nii jigul ki nga xam moo di Tyson. waaw noonu la ko yéen kaay gi suñu lamb xëy fësale ndax gis nañ ne defaat tam bu njëkk euh, ci kanamu Yaxya Jóob Yékini ma ngi ko amee foofee ci stade Léopold Sédar Senghor noonu la ko yéen kaay gi suñu lamb xëy fësale. nangoo euh, fës na Seydina Mar Ba daañu ci dikkaat na mu gën a yaatoo.